जोले भाई mbokk yéen ñuy suivre seen site internet Lutte TV com ñu ngi leen nuyu bu baaxa baax di leen ziare tey lundi 9 octobre 2023 ñu ñëwaat ak yéen ci yéenekaay yi comme ni ngeen ko amee chaque jour ñu ci ànd ak journal sunu lamb tey di ci ànd ak record waaye di ci ànd ak la turbine ba ci sport waaye waa Vice FM ca Gambie leen nuyu bu baax a baax di leen ziare di nuyu ki nga xamante ne moom mooy di jëmoo di nuyu ay auditeurs am mbir Kilaan FM ci Saloum maa ngi leen nuyu bu baax a baax leen ziare di ki nga xamante ni moom mooy euh, Babacar Sarr maa ngi koy nuyu di am yëpp di nuyu waa mbir Kilaan FM yëpp. ñu ñëw ci journal bi nga xamante ni moom moo di La Tribune mu mel ni La Tribune dafa xëy fësal ki nga xamante ni moom moo di Ada ak ki nga xamante ni moom moo di Zoss. ba ñu jàppante ba Ada Fass daal di koy daan ba toog ci kawam mu mel ni mi ngi ñuy wax ne daal Ada Fass moom jaaruwaay ba moo nekkoon jos te jaar na fa ba jàll ba eggee nag dafa décroché ki nga xamante ne moom moo di guy gi mu mel ni journal bi ñëwaat na ci loolu di ñu moom Ada ñëw na ak yëngal bi nga xamante ni yëngal na ko démb arène nationale ba it Papa nga xamante ni moom moo toog ci plateau bi jàpp ni combat boobu moom du yàqoo ci ñoom Ada Fass su bëggee rek manaat ziram bëgg guy gi bëgg combat bi day daal di taxaw moo tax journal bi li ñu wax ni daal Ada Fass gannaaw ba mu paree ci kii nga xamante ne moom mooy Zoss décroché na guy gi ñu ñëw ci journal bi nga xamante ne moom mooy bi sport Ada mel ni daan na guy guy gi ba pare nag ñëw nekk gouverneur Dakar mu mel ni victoire boobu loolu moom dana ko dana ko ubbil ay pour daal di mu pour mu daal di jàmmaarloo ak ki nga xamante ni moom moo di guy gi mu mel ni daal waaw Zoss moom ba nga xamante ni ñàkk na combat ba daal fa daal di wéli pande ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay supporters u Ada Fass ndax naan ba muy dugg ci stade bi lañ ko door barre de fer moo tax moom démb xamul lépp lan la loo xamante ni moom la nekk woon ci stade bi loolu mu ngi ci sport bu ñu foofu dañuy ñëw ci journal bi nga xamante ni moom moo di journal sunu làmb mu xëy fësal fësalaat Ada Fass rek ak kii di Zoss mu mel ni sixième défaite d'affilée moom la Zoss daal di tegale gannaaw bu mu jógee ci mbaam ak ki nga xamante ne moom mooy Ama Balde Ama daan ko Guy gi daan ko Tapha Tine daan ko Siteu daan ko Alioune Seye numéro 2 daan ko démb Ada Fass daal di koy daan mu mel ni Zoss daal instant bi mu ngi toog ci six défaites yoo xamante ne daf ko tegale mu mel ni journal mi ñuy wax ni daal Ada Fass yóbbu na Zoss fële nga xamante ni moom moo di urgence ndax démb ba nga xamante ni làmb ji jeex na ba mu demee këram ba teg ngeen ba pare dafa daal dem fële nga xamante ni moom moo di seetewoo daal di xool li nga xamante ni moom mooy ak wér-gu-yaramam moom Zoss yamul ci loolu de nee na moom bëggul woon a bëre dañ koo forcer mu bëre ndax sentirul benn yoon boppam ba tax mu waroon a bëre boobu la combat gannaaw ba mu ne dafa def soog fële nga xamante ni moom moo de ci côté Malibu journal bi ñëwaat di ñu wax ni Zoss Zoss moom victime la ci accident moto mu mel ni Papa Sow ak Mansour kenn njëkku leen fële nga xamante ni moom moo di dalal jàmm keroog bi nga xamante ni dégg nañ li nga xamante ni moom moo di soog bi nga xamante ni Zoss def na ko journal bi rek des ba léegi ci soog boobu noonu di wax ni soog boobu daal def na bruit bu bare bare bare bare bare bare bare ci combat bi mu mel ni comme ko doon siqal moom moom bu deful soog it yëngal na stade ba ba mu def soog muy Ada Fass nee na journal mi ngi wax ne daal def na foog dóom maanaam tàngal na ko taal na ko ba mu tàng jëri jër jëri jër jëri jëri booy fay wax bëggul woon sos wéet moo tax mu taxawoon ci kanamam journal mi ngi ñu koy wax di ñu wax ne góor a soog ak ki nga xamante ne moom mooy ñang baalo ñoom ñëpp ña nga woon ci ginnaawam ñaari ñi moom àddinaay nekk seen ginnaaw bu ñuy bëree muy Modou xarañ Lo ak ki nga xamante ne moom moo di Ama Baldé gannaaw ba combat bi taxawee keroog nag ngeen gis ñu def defal leen boo xamante ne réew loolu la ñuy waxtaane muy diggante Modou Lo ak kii nga xamante ne moom moo di Ama Baldé mu mel ni loolu yëngaloo wala waxloo nag ki nga xamante ne moom moo di Luc Nicolaï ba mu jël ay matuwaayam ni incha allahu rabbi samedi bii di ñëw bi ci topp ñaari mbër yi danañ toog fële nga xamante ni moom moo di TFM duplex du am triple X du am ñoom ñaar ñuy jàkkaarloo face to face ku nekk di xool sa moroom ci biir bët lig na ko laay daal di rassurer ñi nga xamante ne ñoo bëgg seetaan boobule combat di wax ni daal benn problème du ko fa am ndax it façon combat bu ne organisé na ko kon Modou Lo ak Ama Baldé mënuñu koo jaaxal Calimbeer ak ki nga xamante ne moom mooy capitaine Dimanche lañuy ñuy bëre kenn jaaxal moromam mun naa nekk le 15 octobre incha allahu rabbi fa la nga xamante moom moo di arène nationale ñu des ba léegi rek ci journal sunu làmb ak ki nga xamante ni moom moo di Gris Bordeaux bi nga xamante ni combat am ak Ama Baldé le 7 janvier la moom Gris Bordeaux takk na ay bagaasam ak ay dëbësam daal di dem fële nga xamante ni moom moo di France pour waajale boobu komba yokk cere dool di ñeex usine la moom école de lutte Boy Niang yokk cere dool di ñeex lañ bëgg ci ci saison 2023 2024 mu mel ne am nañ ay objectifs yoo xamante ni daal visé nañ ko. ndax danañ ko jëm wala duñ ko jëm ak lu mën a xew def nañ li nga xamante ne moom mooy seen AG keroog vendredi ba pare jël kii nga xamante ne moom moo di Kandji daal di koy def président école ba mu mel ni daal ñoom am nañ ay ay ay ay ay base yoo xamante ni ci lañ bëgg a tënku bu ko defee école bi daal di gën a jëm kanam làmb ji ku ci daan gën a jëm kanam muy Pokola Baldé ak ki nga xamante ne moom mooy Gàkku 2 le vingt 29 octobre la nar am mel ni derby Pikine boobu noonu moom amateur ñoo ngi koy xaar ñu ci ànd ak ki nga xamante ne moom mooy Boubsou borom Fouta production li ñu xaar ak Gender production le 25 novembre Alioune Seye numéro 2 ak kii nga xamante ne moom moo di Modou Anta mu mel Alioune Seye nuulug Alioune Seye bu bees tàq moom lañ nar a jàmbaar lool mu nar a yem ak samedi 25 incha allahu rabi première journée jaw jaw fara production mu mel ne amoon na ci samedi bi Baye Ndiaye numéro 2 wane albarka li nga xamante ni moom la bëgg maanaam dox ci kawam daal di koy duma daal di koy daan loolu la ñuy journal sunu làmb daal di àndal ñu ñëw ci journal sunu làmb ñëw ci journal bi nga xamante ne moom moo di journalu record mu mel ni daal mu ngi wax ne jinne ji moom jommal ki nga xamante ni moom moo di showman bi di zos journal sunu làmb wala boog journal record moom moo ñu ko wax ci xasida xalima ak Assane Waalo Gueye ñëwaat nag ci li xewoon samedi ca ngoon mu di waxoon diggante Baye Mandiaye numéro 2 ak ki nga xamante ne moom mooy Albarka Kayra mu mel ni daal nee na moom Baye Mandiaye numéro 2 gagné na de waaye ci douleur la gagné boobule combat caatu jolof tamit wan boppam ki nga xamante ni moom moo di Clémenceau ñu des ba léegi wala boobu moom moom mu des ba léegi ci li nga xamante ni moom moo ci samedi ba ci guddi ba mu nekk combat royal mu mel daal jàpp na ni Ama Baldé ak Modou Lô yëngal nañ de waaye moom la mu jàpp mooy ka gën a yëngal wala ka gagné bataay ba moom moo di Ama Baldé moom moom moo gagné bataay ba maanaam wax ji daal bu fekkoon lu ñuy gagné la. moom moo ko gagné dafa Gueye mi nga xamante ne moom lañ tuddee combat bi tamit ñëw na ci moom Assane Wala Gueye leneen lu mu ñëw mooy la xewoon démb diggante Ada Fass ba léegi rek ak ak Zos ñëw ci coulisse yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa jot bëri mu mel ne combat spéciaux yi Diassi Peul moom moo fa daan ki nga xamante ne moo di Diamant Noir Oligans bi daal di fort daan ki nga xamante ne moom mooy Ousse Garga bu dóor dóoraat combat préliminaire yi. buubaa bu Malika daan fa ki nga xamante ni moom mooy Lat Joor bi école de lutte Balla daan bébé Modou Lo ki nga xamante ni moom mooy bébé Jali daan fa ki nga xamante moom mooy Papa Sow numéro 2 waaye nag ki nga xamante ni moom mooy bébé Waly daan na fa ah, Mbul Grand Médine caatu Jolof daan ki nga xamante ni moom mooy caatu Mari mel combat yooyu moo fa amoon démb ah jonaa bi tamit daan fa ki nga xamante ne moom mooy ah Fañang Tivaouane loolu lañ leen andiloon mbokk yi baax xel Lutte TV point com foo mën nekk si àdduna bi ñu ngi leen di bégg bu baax a baax di leen ziare di leen ñaanal jàmm di ko sàkku si di nuyu waa groupe Lutte TV di nuyu ñoom Tuuti Yaay Sarr Omzo bu Garga Serigne Diour bu Osodo di nuyu Mor Jaxate di nuyu tamit ki nga xamante ne moom mooy Abdou Tall bu Xariñ Lo ah, doomu ndeyu Amdi Moustapha doomu ndeyu Pape Demba ak ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Bass Kër Massar moo ngi koy bégg bu baax baax di ko ziare di nuyu tamit ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa groupe xew lamb yëpp waaye duma fàtte ki nga xamante ne moom mooy Ndoore borom top 5 fitness top 5 musculation post caaroy terrain Ndiayeen maa ngi koy bëgg bu baax a baax borom Dakar Mursia maa koy nuyu lu bëree bëri bëri di nuyu tamit moo Ndiaye directeur Sire Madeleine ah sëñ Cissé bu sëñ Babacar ñëpp ñu ngi leen di bëgg bu baax baax di leen jaare Mansour Kassé di jox ñëpp rendez suba incha allahu rabbi C'était le combat des, moom mu wane fula ak combat entre Tapha Tine et a été l'un des plus intenses et des plus violents de l'histoire de la lutte sénégalaise.